mbokk internet yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan tey ñëw fii seen émission seeti mbër seet si koo xam si nii kenn mënu wax làmb tey génn ko si mu def ay tàkkusaan yu am solo euh, làmb nag xaw ko a gis ñu bëgg waxtaan ak moom euh, la wax boole ak làmb ak mbapat ba si combat xam si moom la mujjee def waaye nag du nuyu kenn koo xam ne kenn la si moom euh, muy Cheikh tey buñ fa ñëwee moom moo tax SBT ñu lay nuyu waaw maa ngi lay fay ginnaaw buñu sant yàlla di nuyu nag Cheikh Mbacké mi waral lii xam nga moom dadi kenn ci man waaw maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp waaw. ñi nga ñu ngi lay seetaan te miinuñu la kan mooy Ndiol Jamono ak ci ci ci présentation. waaw Ndiol Jamono benn tout tànk la bu nekk igri rëbës waaw gëmul lu dul dóor waar nag nekk ci laamu ji waaw di def ay preuve yu baax xañ na nag laamu moo tëree nii laamu moo doon loo xamante ni boo daanee da ngay doon champion mais boo daanoo xaw a suux tuuti. ci loolu danañ ci ñëw mais euh, tey lan moo la wax ci lu gàtt lan la boole ak lam waaw li ma boole ak làmb làmb moom dama ko mës a bëgg làmb dama ko mës bëgg dama ko doon fawee tout le temps waaw di dem ba di bëre xam nga di daan di ñëw ba tey jii xam nga ñu yàlla dogal ñuy bëre arène waaw bu baax. ñoo xam si ni tey laala ngeen ci mbapat euh, nga daan leen wala ñu daan leen ñoo xam ne làmb xam ne ku si mel ne kan mbapat. ñoo xam ne bëri ngeen ba par nga daan leen wala ñu daan la ci ñoo xam ne làmb xam na leen waaw bëri na ñooñu mënu ma leen lim mu leen lim fii ba suba du jeex ñett rek ñoo xam ban tur ak tur mais ñi ma daan di mbabat bëri na du jeex walaay lazim ñett ñoo xam ne seen i tey boo leen tuddee làmb xam na leen xam ne ñii ay champion bokk nañ ci làmb ñoo xam ne bëri ngeen ba par ñu daan la wala nga daan leen <laughs> waa Cheikh Cheikh génneel ko ñett man fàtte naa leen de. Cheikh génne ko ñett non yow yaa Cheikh dugg ci géew yaa doon takk ngem yaa doon bëree yow lañ fayoon xaalis Cheikh yóbbu rek la def wut ay butéel sottil la. yàlla xam ne ñi ma daan la ñi ma sama kër boo ñëwee li ma lay tegal ci drapeau mënu ma la kii la ak kii wala lazim. gisee ma laaj la parce que dama dama ne damay jël si euh, njool jamono ñu ne ma borom drapeau yi te yow mënoo ko fee wax kenn ne li yëg li wala da nga amoon coopérateur boo xam ne nag noonu dagg ay tisi dem mu lay ñaw la ngay takk bant. non xam nga nu mu demee man su ma daanee rek waaw maa ngi ci leneen moo tax mënu maa jàpp kii ak kii waaw arène daal maam mën naa jàpp kii ak kii ndax tout le temps da nga leen di gis mais mbabat moom waaw mooy loolu waaw. maam si lu gàtt ay combat nommé tey boo ñu wax ñaata combat nommé nga def. waaw def naa sept combat nommé. mbabat waxuma la arène. non mbabat mënu ma ko compter bëri na trop li ma dem ci ay nommé bëri na trop. vingt ay trente. war naa mot ay ay ay ay dix dix yooyu dix quinze yoo xamante ni mooy loolu ay nommé la. tournoi waaw tournoi tamit waaw dama ciy dem mais lu ci bëri demi euh, final final laa yem ma ñàkk mais namee moom dama ci doon toj bu baax. Euh. combat nga def arène. combat def naa sept combat arène. combat arène. premier combat euh, kii Wank Ndaw. Wank Ndaw bu lee Tigre laa ñu laaj ci combat bi sa premier combat arène sa premier combat arène yow Waax Ndaw euh, boo ñu doon ñu laaj ci combat arbitre sifflé waaw loolu doonoon na lu xaw a diis nag mais bu fekkee comme man comme comme ñi nga xam ne dañuy bëre mbabat waaw du xaw a métti noonu ci ñoom waaw man damaa dugg rek bokk bëri nañ nag combat bu neex man ak moom mais man samay combat boo seetloo lu ci bëri moom du àgg sax deux minutes waaw appui dipp lay doon billaay. arbitre sifflé na commenté la ñu combat bi na ngeen bëree na nga ko daane. arbitre sifflé na. mais boobu man ngaa xalaa ci biir géew bi si yaa ngi comprendre léegi maa ngi léewantoo jàpp ne mbabat la mu dugal ma coup bu dal waaw ma maîtriser xam nga ci laa daw sa lancé ko coup mu daw daw di ma song ma tas loxo yi muy mboot ma yokk ko laa ma ji jeex. premier combat première victoire. ma nekk sama premier combat première victoire. mu ñibbisee rëbës. mu ñibbisee waa neex na trop gars yi teeru nañ ma xam nga def nañ lu ñu war a def yëpp waaw di leen sant nag bu baax waa rëbës. deuxième combat nga dal ci kan. sama deuxième combat booy Casamance mu doon njaago bu të waaw ma defaral ko ci ay one minute. jox la kat jox ma mbaytin merci waaw mbaytin de loolu nag moom gën a kii quoi ndax moom xam nga daan naa ko te mu ngi di bëree gën a te man tamit xam ba léegi gars yi waaw champion la nag daanaan la mais ba léegi gars yi sama avance bi ñu daw la ñu war a te jël ma. dinañ ñëw ci avance bi nga daw bi nga doon jël mbaytin de est-ce ko waaw boobu xam naa ko nii nii rek xam naa ko nii nii rek. xam champion nga daan daanaan daanaan du bëri. waaw mais daanaan na ko daan ku daan daanaan kay daan ah, jox la kan sa quatrième combat. Euh, sama troisième combat waaw quatrième combat kii la déggee junior bu waalo la déggee junior bu waalo lañ ma jox ma ma sifaay moom tamit maa ngi koy nuyoo passage champion bu yaru la moom. waaw ma daan ko jël bu rëy moom it. Uh-huh. sa sa sa cinquième combat. sama cinquième combat Concorde la am waaw ñu bëre bëre mu metti man ak moom mu moom mais moom moo mujj daan. Concorde dama bëgg ñu taxaw fa. est-ce que bi nga jël Concorde xam nga ko parce que booba tegale nga quatre quatre quatre combats quatre victoires est-ce que bi nga jël Concorde xam nga ko. waaw boobu moom xaw ma ko woon mais boobu gisuma woon lu dul bëre. boobu gisuma woon lu dul bëre man ak moom sax bokkuñu woon yoonu làmb mais moment boobu sama avance fu mu dugg day yàgg day tardé. billaay koo jox avance koo ne avance njool mu delloo avance bi xam rek te boo waaw xam nga boo nekkee ci doon gone liggéey lu meti xam nga mooy loolu avance bu ñu la jox xam nga doo lu dul bëre. mais kooku amateur bëri nee nañ Concorde da nga koo da nga koo xeeboon na wala woo ko da nga koo xeeboon. man moom benn saa man li may li may indi rek laay gis moo tax man damay jàpp ne ku taxaw sama kanam maa la mën te comme Concorde noonu la demee sax ci moom combat dafa métti dafa maa fan ba dafa maa woo téléphone. billaay kokkoor boo ñu doon ñëw arbitre bi sifflé na. waaw na ñuy léewante man ak moom ñu xeex xeex bu metti dem naa ardo nag combat boobu mosuma dem ardo mais ci boobu laa dem ardo ñu ñëwaat deuxième round ñu bëree combat bu metti waaw ci lay may soog a waaw metti na trop metti woon na trop sax. billaahi ndax xamewaat naa ci lu bëri ndax ma mbër moom boo dee daan rek défaite baax na baaxul quoi boo dee daan. xam nga champion ngay doon mais boo daanoo rek da ngay xaw a suuxe noonu la demee fi mu yoon wi yoon wi yoon yoon wi gudd na lool. ma man siggu ma nit sax. billaay siggu ma xool nit man mooy loolu ma bëgguma defet ndax man damaa xam lu ci man dama di gaynde di jàmbaar. champion moo daan ki la daan ki la daan war na mën a daan muy Concorde. waaw waa làmb la ki ma daan war na mën a daan dama koy sante suñu borom bu baax di santaat bu baax nag waaw. sixième sama sixième komba Réfane laa ko bëree grand combat man ak euh, Fët Fët bu ma jógee ci koom-koom moom laa bëreel Réfane grand combat daan ko jël bu rëy ci laa ñëwaat fii ñu jox ma benn spécial man ak Ama bu Malika waaw comme li ma la wax rek taxaw sama kanam ma jàpp ne maa ko mën après moom ma daan. diggante Ama bu Malika est-ce bi nga bi ngay combat bi ñu ko jox xamoon nga Ama bu Malika. Ama Ama xam naa ko nii nii tamit ndax doon naa ko xam nga ñoom bëreel xam nga ñoom daan. waa benn combat am de laa mosoon xam ku mu daan moom ak kii damay fàtte tur bi sax kooku daal laa xamoon ci ku mu daan avant muy bëree ak man. waaw mais moom boo ko boo ko fëggoon ne ko ndax mën ngaa daan jool mu ne la non non loolu mënul nekk. dafa daal la. waaw mais làmb la xam nga làmb dafa doy waar. la demee. Euh, li nga xam ne moom mooy sept combats cinq victoires deux mais actuellement ni bokk nga ci làmb lan la gars yi di xaar boo ba léegi promoteur yi ñu ngi bi nga jógee si Ama Malika ñu ngi lay woo wala. mais gars yi pataas la ñuy wër gars yi pataas la ñuy wër. lii la moo fi nekk. Igir Rëbës. laay boo amul lu nooy man sama avance yàlla xam ne li tax sama combat di yàgg kër gu mu dugg ñu delloo ko ñu génne ko wallaahi lazim waaw du rajo bi nag moo tax may wax wala télé bi. gars yi pataas la ñuy wër pataas la ñuy wër lu nooy fii lan moo lan moo nekk fii lan moo xanaa pataas nekk. fii eh, cin cin cin liy bax la de amul ruq buy sedd déedéet jamais bilaay SBT Média la seen émission seeti mbër ñu seet si ki nga xam se ni moom moo di eh, njool jamono bokk ci làmb def cinq sept combats eh, cinq victoires deux défaites vraiment actuellement li mu def nii tey ay morom ñoo ko def ni yëg ci kaw ah promoteur te mbëru mbër la moo xam ne si mbëru amateur yi la bu bu bëree mu neex bu xeexee mu neex bu tousee mu neex Ah, ma leen di wax ne SBT la abonné leen ngeen ba seen notification bu ko defee vidéo yi nga SBT mi koy dugal mais di encore une fois Cheikh sama émission tey moom laa ko may ndax ki ah, euh, tey yan yan adversaire ñoo nekk sa kanam waaw yi nekk sama kanam bëri na xam lay woo promoteur ñu ngi lay woo waaw waaw ñu ngi ci combat waaw ñu ngi ciy doxee jéego bu baax sa diggante kan waaw lay proposé damaa bëgg nga nga bëggal sa bopp nag ñu leen Euh, ñu ngi may proposé kii Thiatou Fora ak kii nu ñu koy waxatee Moodu la waaw. Cheikh Mbacke man ak yow ñooy wax bàyyi Cheikh ci fee xam moom moo may gën a maîtriser affaire loolu moo tax. waaw loolu yii man dama ragal ragal xalaatuma loolu. ñu ngi may proposé ñooñu daal mais maa ngi xaar mais ci bëgg rek man moom instant yi pare naa naa pour ñëpp. waaw gis xam naa ko champion la champion la ndaanaan la. da ngaa xool fa gën a parce que xam nga tey boo nekkee ci nga jógee ci nga jógee ci defet ah ngay nekk fi ay ay ay Modou Feugeule da ngaa xool fa gën a nooy rek. ni mu demee la ñooñu ni mu demee la mais man euh, ni ñu koy waxati Arafas Tafa Mbër ñun ñoo débuté ndoo presque mais xam nga laam moo doon loo xam dafa doy waar comme li ma la wax sànq rek boo daanee da ngay dem boo daanoo da ngay xaar man moo tax ma war a mooy moo tax may laaj mooy kii ñooñu sax. ñi may proposé ñooñ mais ñooñ du ma seen classe du ma seen morom waaw noonu la demee. SBT Média la seen émission seeti mbër ñu ñëw seet si ki nga xam si ni moom moo di euh, Ndiol Diamono dégg ngeen diggante ba baa bu dugal ma tëral ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage dafa bëgg ñëw fii xam na euh, sa digganteeg sa digganteeg Modou Modou Modou Feugue la est-ce que actuellement nii bu avance bi ñëwoon pare nga. man pare naa pour ñëpp entrement mooy sama garab. pour ñëpp actuellement comme da ngaa tudd Modou Feugue la te muy champion bokk ci làmb jógee ci victoire bu am solo. waaw mais pare na man déggoo ma. man su fekkee maa ngi toll foo xam ne si dama naan nii di hésiter ku may làmb ku ma dul làmb mën naa bàyyi ma arrêté. bon <laughs> yow demal rëbës nga laajte njool wala nga dem ci journaliste yi nga ne njool kan mooy njool jamono man du ma yàggal amateur du ma sonal supporter për dëpp rek për dëpp waaw. waaw loolu kenn waxatu ko. caatu fora. fora bi nga ci boole. waaw yi ñoo may proposé rek mais ñooñu déggoo ma lamb moo tëree di mais man ak ñoom du du du ma ak ñoom wóor na yàlla. Ah, fora du yàgg moom. ma ak ñoom man ki ma gën a soxla sax mooy Abou Diassé. lañ ma war a jox ma siimal ko lañ ma war a jox Abou Diassé yaa may dégg ñëwal ñu bëre man ak yow njool jamono bu rëbës laaj dégg naa ñu naan dafa soxor maa gën a iñaan dañoo ñu xamul léegi damay laaj yow lan nga ndékkee tey parce que boo ñëwee fi ay abu man su ma neexee sax des fois may woor <laughs> man bëgguma lu yomb moo tax lu ci damay woor waaw bëgguma dara lu yomb man ku fi gën a tëj laa ma ji war na yàlla jox leen ma ko. da ngaa xëy see teg ko ci buntu tarkindaa yi ne kenn du génn. kenn du génn ku ci bëgg rek na ñëw man moom laa gën a yittewoo Abou Diassé moom laa gën a yittewoo. koo xam day xeex day bëri. waaw yow na nga baax rek kii mooy njool de ñool jamono bu rëbës koo xamul dégg nga ko. Abou Diassé loo gëm la nii wala da ko wax pour dévaler ko supporter yi. non man lu neexul ci man du ko wax lu neexul ci man du ma ko wax te loolu bu taxawee nga xam ne man gaynde laa man mosuma am combat muy dox sama kaw ñëpp maay dox seen kaw duma la daan la ci lu leer am na ay xale yoo xam ne actuellement nii def nañu ay preuve ci làmb ñii ñu ngi ci 5 combats 5 victoire ñii ñu ngi ci 4 combats 4 victoire euh, ku si mel ni euh, bébé guy gi bu école Mor Fadam mi ngi ci 5 cinq 5 victoire et colo seetoon sa diggante moom pare. waaw kooku moom maa ngi koy nuyu sama gaañ la mbay euh, bébé guy gi moom noonu. la mais làmb <laughs> sama waay ndax ñooy bokk des fois fu ñuy entraîné yëpp am nga toog di yooyu. waaw est-ce que nga yaakaar ne ku seet Cheikh Mbacke jox ko avance est nga yaakaar du ko jël. waaw Cheikh Mbacke moom kum ne ma bismillah mooy loolu pare na na yàlla. beneen xale boo xam si ni euh, xale yi gën a dansé la moyenne daan 6 combats 6 victoires Djigo Djigo bi ànd ndongolo te daan moo njëkk a daan caatu ngiwal. kooku noonu déggoo ma li may man cin laa amul roq buy sedd ku ngeen yaakaar ne moo mën ci booy leen ma deux ans deux ans année balance parce que kenn ñemeetul jël avance am kenn ñëwee ko jël. man sama combat tax mu daal lool la man sama avance bu mu dugg mu génnaat nañ ko seeti bu daaxooree man pare na même wës jàmbaar baax na. wës jàmbaar bu mujjee daan koo ñaar dëgg. waaw même wës man bëgguma lu sedd bëgguma dara lu yomb di nuyu sama grand bi nag au passage kii mooy aada aada mu njool jamono waaw kii moom mooy mooy lépp man mënu ma sax di wax ci moom lu bëri. su ma waxee ci moom rek xam nga sama xol day tooy ndax xam nga su ma amee combat day bàyyi léppam bàyyi lépp yàlla xam na ko dugg ci àll bi fu ne la fay dugg xam nga lépp moom la tey bu njool taxawee am si wala muy feeñ télé lépp jëm ji la maa ngi koy bu baax di ko gërëm di nuyu sama benn grand tamit mbaytin xam nga ñoom baxa siri xam nga di nuyu booy ka danañ ñëw ci sant gërëm yi mais est-ce que adversaire yi nga xam naa grand ba bu waxtaanee mooy la noo delloo. <laughs> maanaam buñ may wax buñ may wax euh, buñ may wax adversaire moom dama naan ko demal koo gis ba ne nii rek garaawut yàlla xam lu ci bëri moom mooy dem sax wala des fois sax danaan promoteur est-ce que jar nañuy ñëw bu kooku daaxooree rek garaawut daaxoor na ñun amuñu yooyu problème comme ay adversaire bi nii la toll wala nii wala nii la mënee non non man dama lay defaral ba pare soo ko xam ni nga mënee waaw ndax man dama am gëm-gëm boobu billaay serpent serpent noir bu bu grand dégg nga déggoo ma man amuma ku may bàyyi amuma ku may bàyyi wala muy neex ngeen jox ma luur jox abu jaase wala rag nu mu tuddati ndooy man ci ñooñu nga may tànnal li ma ci jox mais bu ma ay lésé wër na yàlla foofu laa boobu ni la am demee la rek Pam Ndoye li ko Jackson mujjee def moo tax nga jàpp ne boo ko jàppee mu tëj. ikiri boo dem na njool jamono ñu ne la xam nañ ko boobu danger ngi noonu te waxuma ko pour ndam wala dara mais yàlla xam ne koo ci seeti bu soxorut ne la ndaanaan a ngi noonu seeg nag làmb moo doy waar làmb moo doy léegi léegi adversaire yi nga wax yëpp dama leen jël ma dugal leen ci pot ma yëngal nga génn ñetti adversaire yoo xam ne yow ñoom nga gën a yi nii comme li ma la wax rek su ma amee amee Abou Diassé baax na su ma amee Pape Ndoye baax na su ma amee Wës Jàmbaar baax na keneen koo ci bëgg a teg baax na caatu ngéwél sax boobu combat bu ko neexee mu ñëw. dugg na si dugg na si dugg na si rapide sàmm la ndax alliance biram nga xam ne nii xale yëpp dañ ko fee bàyyi moom la ko léegi damay yëngalaat ñett ñi nga jot wax ñii muy abu euh, wees jàmbaar abu Ndiasse ak euh, ak kan nga waxaat sax ak euh, Pam Ndoy léegi ñoom ñett génn si ñaar. ma génn si ñaar ñoom ñet ku ma jàmm baax na. bëgg xam actuellement ne ban combat boo xam si ni tey moom nga gën a bëgg moom la sa gars gën a soxla. abu Ndiasse Pam Ndoy. Pam léegi ma yëngalaat nga génn benn. jox ko abu Ndiasse ndax kooku damay dégg ñu naan dafa sadik te man gëm naa ne man maa gën a sadik. waaw mais trop dafa màggat ba xam nga topp ak benn màggat di ko topp mu xam nga mënoo koo daan kook nañ la nañ la ñamal ci booy yi ba xam. Mhm. mi ngi noonu ah, amateurs yi ah, promoteurs yéen ñëpp yéen a ngi seetaan ki nga xam si ne moom moo di euh, njool njool jamono dégg ngeen kombaam ak digganteem ak Abou Ndiassé la gën a bëgg bu Pam doy ñëwee baax na bu wës jàmbaat ñëwee baax na waaye dégg ngeen combat bi mu gën a bëgg mooy tarkindaa yi moom daal tey dafa jël seesam teg ko buntu lamsaar ak jàmm gën ne kenn du génn tarkindaa yi sa diggante Abou Ndiassé tey bu fekkoon tey euh, maanaam pare nga te Abou Ndiassé gis nga ko day day bëre ab jaas maa ko daa ko xeex loolu bala nga koy gëm man ak moom mu taxaw wala nga laaj ñi nga xamante ni samay coach lañ ku ci mel ni Cheikh Mbacke Boy Ka Cheikh Diaw xam nga euh, Talla da leen di laaj kan mooy njool wala nga dem yi nga taalal sa micro ne leen kan mooy njool dañ naan la kooku bu xeexee mu neex bu bëree mu neex su tuusee mu neex waaw noonu la demee. nga xool nga xool Abou Ndiassé loo koy yóbbante. Abou li ma koy yóbbante bëriwul comme que mënoo am combat da nga may jéem a jël man la njool jamono bu rëbës boo ma jëlee ma def ma teg la lu metti waaw noonu la demee. loolu rek laa ko mën a wax amul ma koy wax leneen. fekkee nangu koo jël léegi. waaw ah, bu ko nangu jël ma xam ne daa ragal njool rek. njool moom ko jëlu da nga rek sept combat laa daan. wànq ndaw dama ko daan daan booy Casamance mbaytin gis nga ko day bëree grand combat nii la dégee junior moo bokkoon ci tournoi kii ba ba bi muy bëree maa ngi doon tout tànk te ma ñëwee dama ko tegal lu tar waaw mbokki internet yi bàyyi xel SBT dégg ngeen adversaire mu fa wax muy lamb yoo xam si nii yu jaadu la ah, wax naa leen ne xañ na tey euh, carrière lambam li ko gën a sooxe mooy avance bi nga xam ne fu mu dugg gars yi nekk fa di ko wërwërloo ah, ba mu dugg si diggante ma Concorde ñu jógee fa amaat victoire duggaat si diggante ma amaat Malika ñàkk moo tax mu des mais champion la ndaanaan la bàyyi leen ko xel baax a baax adversaire yi mu fi wax ne ay adversaire yu jaadu la digganteem ak Pam Doy lamb la digganteem ak euh, ko waaye digganteem ak ki nga xam si ni moom moo di wës jàmbaar it lamb dàq ko ñu bàyyi la nga sant gërëm ñi nga xam ne ñu ngi lay jàppale. waaw ah, mais bala may sant gërëm bëgg naa tamit sama grand mi nga jox ko nga waaw Moussa na nga soog a tëj waaw aada la tudd aada bu njool. kanaa euh, ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay cher bu baax jërëjëf. adversaire yi mu fa wax ce que est ce que pare ngeen pour jël adversaire. waaw moom li ñi ngi koy limal ñëpp du du adversaire am ñooñu ñëpp xëy na lam lim lam ne moo tax mu mais ñooñu ñëpp du seen morom ay luur ponkal nañ ñëw ñu xool waaw ku ñime rek Pam Ndoye moomu na jël avance bi Abou na jël avance bi ku jël avance bi ñam wala ma dem ñëw xëy na dafa juum si diggante wànq moo ko moo kii moo ko moo ko waaye xam na ne champion la concord boo ko boo ko déggan mi ko rek mu la njool champion la xam na la mu fa jëlee làmb nag moo day war day wor kenn xamul lu mu deme mais ñi mu la wax noonu nañ jël avance bi ñu moom nañ jël avance bi yaaga yaaga na yaaga dem si moom wër wër wër maanaam lu mu lu mu yàgg yàgg dañ bëre jërul wër bi day yàgg rek mais dañ bëre kon na ko teel a jël nag day gën a métti ci kanam day gën a métti day gën a métti ci kanam ma ne Abou Diass day na jël avance bi yàlla seen day gën a métti bu neñu kanam jël ko léegi moo gën a sedd ci moom. su ma la déggee képp koo xam ne jëlul avance njool si kanam day gën a métti amul amul jël da jëluñ ko wax kay amul ñaari wax ku ko jëlul léegi léegi léegi day gën a métti ci kanam jël ko léegi nag mooy mooy li nga xam ne mooy mooy gën ñoom ku jël léegi ma dem ma ma won la maal dax bëri dax la xeex xale la mën naa bëri mën naa xeex tey li mu bëgg na ko grand li mu wax muy grand aada di ko jaajëfal baax a baax euh, lan nga ciy yokk ñu bàyyi la nga tàggu sant gërëm ñi lay jàpp. waaw li mu lay wax nii dama koy confirmer rek ñoom ñoo ma mag fuuf ah yaa ngi dégg ma ma ma ëpp ñu ma doole dàq ñu maa xeex te ñoom ñoo ma mag fuuf man 96 laa judd damaa sob rek teel a dugg ci làmb xam nga ñu bëri nag maa ngi dégg ñu naan mag la mag la man 96 laa judd sama carte moo ngi nii loolu mu la wax moo nekk koo ko léegi tamit day gën a métti ci yow rek waaw di nuyu sama doom day tamit Ndior Morola waaw moom tamit gars yi nam nañ ko lool mais mu ngi waaj a def retour bu baax mais maa ngi bëggee ñëpp di sant di gërëm di nuyu sama grand Cheikh Mbacke du ma ko du ma ko taayal di ko wax xam di nuyu waa Paax Koro bi waa Ceep xam nga waa Touba waa Morola bàyyi ba kenn su ma limee damay juum di nuyu mbaytin dirisa baxa sérigi waa kër bambara di nuyu sama yaay tamit bu baax mère Sata maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama yaay jooy sama yaay bopp la waaw di nuyu waa ceeb tamit ceeb gi ma cosaanoo maa ngi leen di nuyu bu baax di leen bége waaw bu mu limee damay juum waaw mais maa ngi bége ñëpp daal SBT Média la seen émission seeti mbër ñu seetoon ki nga xam si ni moom moo di Ndiol Diamono ah bokk sa lamb dégg ngeen adversaire yi fi wax nag muy ay lamb yoo xam ne lamb yu neex la ah dégg ngeen li grand aada wax nee na ku si jërul léegi ah day gën a métti ci yow kanam kon amateur yi ngeen combat yu neex la fi wax diggante ma Pam Ndoy na diggante ma Wës Jàmbaar ah, jaaru na muy ay lamb yu neex di leen jox dig daje ak beneen champion ak beneen invité ci SBT Média jërë